Sidi ñu amati mbégte kontante Dakar Midi ànd ak presse 24 ci liggéey bu am solo bi ci ki nga xamante ne nii Armé 2 ak caatu xaar yaara xaar yàlla da neex na moom Baye Sidi toog di xaar caatu xaar yàlla tu xale bay fecc noonu diggante moom ak Armé 2 uri wa dimna ken waxima dimna ngan tall bakk waratina mbaam teel a cinq ci weeru tubaab ñu tase fi nga xam ne mooy bu Pikine di jaajëfal gars ay di jaale suñu confrères yi waa leeral point arbitre sifflé na caatu yu xaar yàlla ak armée ñaari xale lañu armée 2 na bàyyi waat caatu xaar yàlla arrêté waat eh waay waay buñ jàppante mbaa dina sotti yàlla xam Armé 2 xajam na lool te mbër day xajam <laughs> ama laamu suñu yëf la nag ñoo ko eh, suba eh eh kooku jël na coup eh, eh. loolu tus nga laa ko tuddee commencé dina wala kaani tëmbal Armé 2 Caatu Xaar Yàlla Armé Caatu Xaar Yàlla Armé 2 wure wa dem ka waxi ma dem na ngeen sana rapidité ya vivacité ewa eh <laughs> basi ah da koo jël dafa rëy da koo nax <laughs> Lamine xale yi mu ngi si ñoom de <laughs> waaw la mu ngi si xale yi da koo nax daa ba xel ne ci kaw mu yoro jàpp ci yi bëri ñu ngi si ñoom bàyyi Sidi lii dama ko toogaal li ñuy jóg dem jëli ji interview boobu armée deux jë armée deux jël bu rëy la daan xale bi di armée ndaanaan la armée kaay wax ak ñun. armée noo bëree. lépp suñu borom la lépp suñu borom la. may sant yàlla bu baax. sant waa Bawol sant waa Paas la Séni may sant bu baax a baax. dañu koy sonn kay coono ay lu méttee métti. waxoon naa la ko newoon naa la.

<laughs> lamba ngi ni wuri wadim na ke wax ma dema di ngeen taali ay ndaanaan ngeen ci lamb ngeen bokk ndeysaan looy looy amul problème ngi géew bi yaakatul ma wax jaji rafet na ma yoole egsi na waa foora ñaa ngi ni yoole ngi nii ndeysaan Ardo ngi noonu di génn di dem si géew ga eh doomu parcelle jaa ngi ni xale baa ngi nii eh laa ilaha illallah la de jël bu rëy fi la fi mu war a bëre caatu ye caatu foora eh, <laughs> moytu ko may ko may ko mu jàll Baye Siri ñu dem Baye Siri bi moy Ardo yóbbu na ah Dame Sène lan Dame Sène la nga loo indi tey. eh Dame <laughs> Sène eh waay waay lamb suñu yëf la ñoo ko moom. xala ma nuyu supporter Dame Sène yi supporteru Dame waa kër Dame Sène wan nandi fal yaa ngi ne ndeysaan bay sidi xarfa xuufa yaay ni déeba déebi mbër rey xajam caatu foora mooy nekk noonu laa ilaha illallah bay si ay lekket lu ngay gis ci làmb lii lépp ay cosaan la rek làmb tëddee noonu xam nga xale yi des fois làmb am nu demee lamb defa nga bëgg mu yéex lool mu gaaw lool Baye Sidi nga ñëw fon dina gaaw di nuyu àdduna bi ñuy seetaan fu ne mbokki diaspora bi a caat a waay caatu foora xale bi a waay doomu Siteu la xale bi laa ilaha illallah yàlla defal jaamu Baye Sidi Sénégal suñu réew la di jaale suñu confrères yi nga xamante ne dañoo décédé waa leeral ah ardo keesu picc gi ardo indi na picc picc yaa ngi naaw jëm gauche jëm droite jëm bët gànnaar ak bët saalum dem fu ne waaw ndeysaan yaa resté connecté toujours Dakar Midi ak Africa Presse 24 di ay ndaanaan ci làmb eh waay mais kenn du bàyyi Sidi jinne caméraman la lu mu filmé wul baaxut nit ku baax la ndeysaan Baye Fallou Serigne Touba la maaleykum salaam jaajëf waaye seen ba léegi xale yaa ngi xëppoo di xëppoo lu ñu xëppoo lu mu doon est-ce que ma may butéel man man laal ci may leen ma butéel nañ may butéel ma yóbbul Ousmane ah nañ ñu may butéel Baye Sidi bu xoox bii bëgg naa ko. doomu jàmm gën la. waaw ndaanaan ndaanaan la waa ndeysaan Babacar Babacar sama waay nga da ngaa baax ndeysaan ak Ardo Ardo day la ah la la samedi bu leen ko fàtteeti de fii si stade national ànd seeg Africa Press 24 arbitre sifflé na ñoom ñaar Ardo ak Thiatou Fora ñaar <laughs> ay waay waay waay waay waay waay wude wa dem na ke waxi ma dem na ngan tàll bàkki waratina mbaam eh waay bu ñëwee rugum daje loxo mun na dar gémmeñ à tout moment waaw waaw parce que xale bi di Ardo fi daan fi jël bu rëy la de combat calcul la Ardo Thiatou Fora fausse garde à gaz Ardo ñu woon ginnaaw Thiatou Fora may mbër mu xees mi doomu jàmm gën ji mais kenn du Ardo doomu parcelle ji ah waa ndeysaan du ma fàttali nuyu sama waay ja eh, ay ko waa ndeysaan di remercier doomu aadama yëpp Abou CFA mooy wax ak yéen tey émission bi am seen émission lambi tey tey sama ndaanaan noonu ngeen ma ci lambu maa ngi fi ne ko juru xuy rek maa leen gën a nomb yéen ñëpp arro caatu foora eh la ilaha illallah eh waaye loolu mooy éperkil arro ak caatu foora booy <laughs> parcelle la éperkil boobu daa mel ne moo loo jox laajal am ma seen ba ba yërdu ah ba bañ ko koree bañ ko dóoree dafa daanu. Ardo Thiatou Fora. combat calcul la Baye Sidi de kenn du wanteer sa combat ñoom ñaar. Ousmane maa ngi lay siyaare. borom Dakar midi di di nuyu équipe Dakar midi bi yëpp yàlla na yàlla defal jàmm ak salaam. ndeysaan di nuyu waa équipe bu presse Africa presse 24 ku ci mel ne Baye Chidi di ndaanaan moo ne ci technique bi. xam nga nag ay combat xale lañu te duñ bëgg a juum calcul lay bari kenn bëgg a jël sa décision bopp conseil esa la ñuy bëree ñoom ñaar buñ bëree conseil rek combat bi soof. Babacar xale yi conseil la ñuy ne nii conseil la ñuy bëree fi mu nii waaw fi mu ne conseil yi fi mu nii la ñuy fi mu nii mais waroon naa jeex waaw. mais waroon naa jeex waaw conseil la ñuy bëree Baye Sidi. mu jeex de gis naa loolu de. eh lambu la Thiatou Fora Ardo. bu jë damay ragal combat bi jeexee waaw Thiat Fra bu na jël combat bi. Thiat Fra bu na jël combat bi. Thiat Fra bu na na <laughs> ardo ba léegi ñoom ñaar. fi ardo am na fi mu te Ardo lii nam la si lamb day mel ku lay fàq mu daw roof tabaxal bi waaw loolu lay def. ku juum daanu amul. dëgg la Thiatou Fara dafa taxal ba bi si suuf daw ndengeñ dënn bi. da bañ da bañ booy bi door ko tànk. waaw waaw yaa ngi la la yaa ngi wax <laughs> lii li ma leen wax mu ngi noonu. Ardo loolu mëni nam la ndaanaan lu bëri kenn la mais Thiatou diis waaw tey dafa diis ndeysaan Ardo jama xalaat na ko jaan bañ na waaw la waaw Ardo daan na ko jël bu rëy la <laughs> ba daanu Thiatou daa ba daanu Thiatou daa ba daanu Thiatou daa ba daanu carton bëri ba daanu. xoolal ma xoolal ma Ardo. xoolal ma Ardo Lamine. Lamine ba daanu. daa bëri ba daanu ndeysaan. dafa war a teey bi. Eh, Ardo ngi daanu yësi xool na muy daanu daanu ya commencé na jëli ngi daanu mu daanu car <laughs> bora am na lu ko siidi xale bi xel de kii Ardo de <laughs> Lamine kii ndaanaan la de xale bi waaw ah, baax na après nañu comprendre <laughs> waaw waaw. ndeysaan oh. Caatu Fara daa bëre ba daan Baye Sidi. sant yàlla bu baax. di nga bëree nag fay waa lamb la rek. lamb ak chaque jour nu muy ñëwee. xam nga noo ñëw entraînement ñëpp xamee la kat ji ni yow der nga chaque jour doo doo doo doo daw xare quoi ku mel noonu warul ñëw di di. di di saax saaxee combat am rek waaw. sa bët foo ko teg foo jëm. waaw lamb yaa ngi fii gars yi bëri nañ de gars yi bëri nañ waaw lamb la rek ay xale lañ di soog a door. waaw waaw waaw mënul ñàkk mënul ñàkk parce que moom lañ joxoon favori quoi mais ñun xam nañ suñu bopp dañuy entraîné lu metti ku si mel ni sama coach ay ñoom Pape xam nga ay ñoom Diallo ñoom ñëpp dañoo sonn si ñun. te suñu mel ni ñoom am na ñoo xam ne nekkuñu fi dañuy jël seen seen xaalis seen xéewal di veiller suñu suñu suñu santé di veiller suñu ndax ñu ngi lekk ndax ñu ngi naan xam nga te xam nga rek mooy loolu noonu du dara lu leen defal lii rek lañ leen mën a fayee kon bu jaroon loxo bi denc si sax waaw dañ koy def mais yàlla ñu yàlla may wér tamit ñu ngi koy ñaan suñu borom sonal na ma trop ndax loo ko rabal ndax mel ne dama ne la taaw laa doon woo mais dafa mel ni caat moo mujjee teew man la taawu yaayam baayam ak maa si caat bu réew. jàppee ma Mikaël ndax jàmm gën attanul sama première taw tegal ma kaamil ma waat ni Siteu taalibe Bamba dama lay caw du man ak yow ni ga maa ak yow comme yàlla duma la yow ni ko man damay jaar rek jàll attaqué koñe gañee ñoo dima bandi man dama lay kañe bëre daan ñu bii pare naa si kii ma keneen ana seen tapet bi yaago bi jàgg bi xam nañ ko ay nar bu yàlla waaw waa waa gis nga ñëw taw indal fii booy jóob law bu na mën na la waaw non xam nga dañu ñaar ci lamb ji lamb lañ am xam waa yara waa tranquille cool waa yara xagal fa waaw di sant yàlla baax di jël si bi sant sama ñaari waajur dinañ ñaanal yàlla xaar di ñaanal képp ku gaañoo yaraax muy mag muy ndaw di leen ñaanal yalla xaaral àjjana di jaajëfal saa rawatina xale yooyu demoon cog ci bi yal na yàlla yërëm jéggal te xaaral àjjana di jaajëfal ñëpp xam nga rek yaa ma ko xam dañ namoon lii quoi dañ namoon lii damaa indi woon tey boo jóg yàlla may ko ndam di ñaan yàlla mu sax ci moom bi mooy premier combat am di ñaanal sama doom ndey Moussa Ndoye dafa war a bëree mu toll le 26 Moussa Ndoye sa kees di ko ñaanal yàlla yàlla nga fa ré ré ah yow saa yow. boo yow ngay tuxandu boo doo cent barke borom daal doo dërëm. man noonu laa dëkk du ma ragal. nu jàngale Ba kii du dërëm. sama naam boo ko mën a yóbbu lu tàng daw. waaw dimbali ma mën a daw boo ma fekk see ba teg la lu métti. kër papa sax damay bëri. déggoo li ma la wax boo ma fekk see ba lan la lan maa moom ñooy bëre la huit. le huit la ñuy bëree. le huit la ñuy bëree. instant bii ñaar dafa bëgg a yóbbu lay duma daan la. parce que maam Thierno da ngay faat tapet nga. yow sa tang yi amul doole. sa tang yi moo amul doole. ba pare nga ñëw barke Alxuraanu Karim dama lay duma daan la. dërëm jël ma. barke Serigne Saliou doo dërëm. bu leen jëlamu fi kii ma moom du lamb. Ah. doole suuf lay xam ne man ak moom du lamb. man dama nekk si ay loxo nekk si waa Yaraax waa Yaraax ne sama ginnaaw barke Alxuraanu Karim maa kii du lamb bu la wiitee incha allah gars yi nanu xam nokki yàlla muy andi bu soobee yàlla. bilaay walaay. <laughs> doomu Grand Yoff la xaar yàlla moom it moo indi Nandi Fall moom noo indee Nandi Fall tey moom it ko indee tey moom waaw sant yàlla rek waaj pare ni ñu war a paree. di ñaan yàlla mu defal ñu ndam. yaa xale bu danger Dame Sène si taay ñoom ñaar xam naa ne neexoon nañ lool dina gaaw wala. mun ngaa di nga gis làmb joo a gis lu ma war ba leer. waaw. la dañuy gaaw a fàtte. waaye bu arbitre bi lépp xam lépp dëgg la. jaajëf jaajëf. waaw ah, Habib maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay mon frère. première journée mu réussir neex lool. waaw ñëpp bëgg. nga doon liggéey ci làmb tey nga ñëw di jàppale xale yi nga xamante ne ci làmb Habib tey nu gisee journée bi tey. waaw kontaan rek. di gërëm waa Sénégal rek la may wax rek sant waa Sénégal rek ndax bu ma yeggee fii ñoo ma fa yeggee rawatina samay mbok ndax journée bi dama ko tëgg mu nekk première sortie Habib ci làmb mu delloo ko waa dëkkam mooy jas Séeréer Safeen yëpp mobilisé wu ak seen autorité ñu ñëw tey wuyu si ma ci lii kon lii dama ci bëgg a sant yàlla bu baax di gërëm Sénégal di gërëm site internet site internet yi yëpp télé yi yëpp ñëpp mu wuyu si tey woykat yeeg fecckat yeeg ñëpp ñëw nañu mon frère man dama kontaan waaw. yàgg nañ liggéey ak yow ci làmb yàgg la fekk ci làmb ngay sonn ci làmb sa bés ku ne desee war a sonn kuy ko desee war a sonn tey waaw parce que lii laa am lii laa am ci nit ñi donc am na yeneen bés yi ñëw mooy gën a taar incha allah ndax lii war nañu lu bari war nañu lu bare bare bare te fa la ñu jëm incha allahu rabbi au sommet lañ jëm si kàttanu yàlla ndax dinañu ñeme yoon bi te dinañu musulu ñu xam fu ñuy teg suñu tànk ba yàlla yebbuñu fu ñuy wan ndax xam nañu ne fu ñu yeggee Sénégal moo ci am njëriñ ndax dama ne man su fekkoon ne làmb dama ciy wut alal am na leneen lu ma mun a wute alal mais pas làmb yàlla xam na ko jeunesse bi laay jàppale ak bëgg bokk ci ñuy yóbbu làmb ci kanam lii kese amin ya rabbi merci beaucoup. ya Yana moo tànn si diggi bopp bi. doomu saafeen. doomu a yande. maa ngi waaw waaw. damaa juum nii. nooy. <laughs> ndeysaan ñaari xale ñaari xale yaa ngi ah, lewtoo lewtoo bi dafa bar. doomu saafeen ak mën a ndam ndam dikut. kurpeñ dalut. doomu saafeen ak Badayande. doomu saafeen. doomu moo ñu woon kanam Badayande ñu woon ginnaaw. doomu saafeen ak Badayande. arbitre xale yu mën a bëre lañ doomu saafeen ak Bada Yande ndeysaan eh waaw waaw wecc doomu saafeen ak laa ilaha illallah jël na ko jël na ko jël na ko Bada na ko eh doomu saafeen ak Bada Yande wër daan na doomu saafeen ak waaw waaw wër ndombu daan doole doxul jàmm waaw waaw eh waaye viva qui c'est la rapidité sa waay doo ko woo ma ne. c'est l'émotion. dama rek léppay bu baax a baax. mais Mamadou misaal li may def mi defal ma dara mais Ousmane Dëgër. Ousmane Dëgër ah. combat bi moom boo ko moom. tellement ma ñëw xool mu yëkkati xaalis bu bëri may ma ko. ba di wax ak man. baax ah. barki Sëriñ Saale Mbàkke. lu tax man xam lan lan laa leen laa xamul. billaay walaay. barki alxuraanu karim. xoolal. xoolal combat bi ah, sama booy ñooy dajale xaalis ma ko jox may man da man déggoo ma la man neewoon naa la bu bëree ma daan ko bu xeexee ma ma duma ko du ñu laajte ku dóor ku daan la ñu laajte. nga ne damaa mën a bëre damaa bëgg a wan gaa damaa mën a bëre. damaa mën a bëre waxoon naa la day gaaw day gaaw nga ne ma dañuy dem vaar ma ne la bu ñu demee vaar man may wax. grand combat bi. parce que maam Cheikh Ibrahima Fall ma yaakaar grand combat bi ñoom laa ñoom ñoom ñoo ma dese. bii mooy sama cinquième victoire benn défaite laa am fii Bawol am naa fa deux combats deux victoires fii ma fi cinq six combats cinq victoires benn défaite. Papa Dame yaa ngi nii waaw waaw. waaw soori munu anda demal ñibbi fii nga dëkk dafa xawa soori. dafa xaw a sori fi nga dëkk dafa xaw a Nandi Fall yaa nekk nii Baye Sidi ma gaay dem leen ñibbi dëkk mbaa si fi nga dëkk mbaa sori wut <laughs> mbaa sori woo waaw kay. bal fi nga dëkk mbaa sori wut fi nga dëkk mbaa sori wut bal. ah kon jërëm ngay ñibbi bu nga toog ba ci kanam tuuti toog ba ci kanam pal ah waaw nga dëgg dafa xam tam seen a noonu mbër yaa ngi takk déeba dee bi xar fa xuufay ak jaaji ñaari mbër bu ñu musaan daanu njaay ku yëkkati sa mbër ne moo daan Khadim Anta Seck yaa ngi enregistré ay numéro de daa sob de ah falaa yem ah yàgg ngeen ah kon noonu la waa ndeysaan nan di fa yenu la lekkel ba ca bopp ba Ali ñi la ko lamba demee noonu ndeysaan Dame Sène a ngi takk Senghor ya Senghor la Dior Diop Ngol Latin ya Alburi Njaay ba <laughs> Senghor Baye Sidi baa ngi ni xàmmee naa ko bi la doon takk bu bu xare ah, taa yi ngay bëre Senghor yi nga yoroon Baye Sidi waaw ba ngay <laughs> Baye Sidi ko gën a fàtte mais daanaan lu bëre kan la xale bi yam Dame Sène la lamb warul fàtte ñaar ñi du ma fàtte di seere Papa Samb borom caaray Azir sama xarit ba ndaanaan ndeysaan yaa ma teree xiif de barki sëñ Tuubaa xaalis bu bari la may may ak Zambo Mbaye bu ñanam Abu Sefa kookoo tax tey sama xarit yooyu ay ndaanaan lañ de dem ba yoof di di nuyu ji sama xarit ba disa sama jigéen ba yàlla jàmm yàgg ci kawam àdduna noonu la di ñaanal ñu nekk si kaso yi yàlla ñu si jàmm ñu tëdd si hôpital yàlla ñu wér jàmm ah di nuyu Cheikh Alassane Sène Cheikh bi ñu ngi lay siyaare yàlla yàlla def si yow jàmm mbooleem yi nga xamante ne tey ñu ngi si ginnaaw Cheikh bi yàlla yàlla defal jàmm di la ñaanal di ñaanal grand bu naa ku baax la ndeysaan moom tamit sarax leen ma boisson

yaa ma borom lu sedd laa ngi ah waay ndeysaan tam ngoog nee na gaay jóg naan di mu ngi wër yenu lekket bi di wër géew gi lii dafa bokk ci culture lii ci lamb la bokk waaw lii ndeysaan lii bari na ay mbëri xanaa def ay ndaanaanu bërikat xam nga làmb dañ naa reeru ñambi la ay suba soxu gàmmu gay fii Jacob Baldé ma ñi kayre loolu journée Baba Diaw la Baye Siri na dafa mel ne de arbitre baa ngi bëgg a nekk si diggante Dame Nandi Fall combat baa ngoog arbitre sifflé Dame Sène ak Nandi Fall Nandi Fall écrit Grand Yoff Dame Sène par ak Nandi Fall wuru wa dama ko wax ma ne ma ngeen tànn bakki wala ci na mbaam bokk ak Africa Press 24 la ilaha illallah ndeysaan lamb nii la e mais lamb ñu foofu la mais ku daanu rus am foo la de mais foo mu gën a moo ne ku daanu ndeysaan Dame moo ñu wan ginnaaw ay eh, Nandi Fall mu ñu jox faas Dame Sène ak Nandi Fall ba léegi ñoo xaw a tolloo tuuti taay rek mais Dame Sène dafa xaw a sàcc tuuti taay parce que Dame Sène dafa xaw a doon njoolam ci celaan naan dafa xaw a doon ndaamal daaru wala ndaamal màcc di siyaare mbokku adduna bi di jaale suñu ko frère yi waa leeral point net di jaale di ko jaale adduna bi yëpp di ko jaale presse bi dama fàttali nuyu Papa Samb borom caare Azir ndeysaan sama xarit ba jël na la Dame Sène naan fal la ilaha illallah Dame Nandi Fall Dame Sène ak Nandi Fall ba léegi Dame Sène Nandi Fall combat bu nar gaaw wala Dame Sène ngi suuf Nandi Fall doon na roofu ko pour ngoobu Dame Sène Nandi Fall ba léegi Nandi Fall wanatuñu ñu ginnaaw Nandi Fall fi mu jàpp fa arrangé waaw fi mu ko jàpp fi mu jàpp Dame Sène da koo arrangé Nandi Fall te kaaral gi bari na foofu Dame Sène ak Nandi Fall Nandi Fall dafa jàpp xaw a ngeen ci suuf Dame Sène jàppul nag doon na la tànk wala lu mu def noonu. Eh, eh, eh. lépp lu si waay am bal la ngeen fi wóor def lu assuré moo gën parce que lamb des fois dafa xaw a doy waar ku bàyyi lu créer doo jug si juum lépp la def da def la nga mën daam seen ak naa di faal ba léegi bërëb bi si suuf lañ ko bëgg a ñoom ñaar dugal kele dindi kele mais Dame Sène ah Dame Sène jàpp na ñu mel ku ne am nga ngeemu ndax ni fal bu si géem lañ la dëpp sol wóorut waaye bu demee sol de añ la dëpp paquet sa tànk yi ak yow Dame Nandi Fall lamb ne am na fi bés ne am na fi mais bisu Habib bii tabarikàlla macha allah rafet na taaru na ndeysaan Dame Sène ak Nandi Fall ba léegi c'est ku dañuy kucalante ci ay ku kucalante la kucalante ay sërëxal la ndeysaan zoo technique ñu ngi lay nuyu lamba nekk noonu waaw am falame ku daanu rus makaan falama xam ku daanu rus billaay ku daanu rus ndeysaan makaan billaay ay ndaanaan lañu ndeysaan billaay wallaay ah waaye lii lu mu doon <laughs> waaye lii di sukk bi kii de ay tàngama dang maa koy gis arbitre <laughs> Baye Sidi sukk boobu sukkum lu lu mu doon dam seen ba léegi dam seen ak Nandi jàppante nañu Dame Sène ak Nandi Fall ba léegi ñoom ñaar Dame Sène la la bëgg a bëre nii xar ba wala la ilaha illallah waaw waaw Dame Sène di ndaanaan waaye la bab si nii waaye la ngi nii viva quisité la rapide quisité il est tout waaye il est très joli waaye il est magnifique am di kotu na Dame Sène waaye kii amun a bëre waay eh ay lamb nii la war mel mais ay yële nii la war mel waaye Baye Sidi sumal ma lii Baye Sidi sumal ma ko Baye Sidi xoolal ma Dame Sène waaye am di kotu na xale ba doomu parcelle jaa ngi nii eh, waay waay eh, waay waay laa ilaha illallah waaye jëli ma si ba daru ay waajile fi ngeen dëkk dafa xaw a dem leen ñibbi laa ilaha illallah ndeysaan o oh, waay Dame Sy jël bi mu daan rëy na. maanaam combat bi techniquement noo ciy dikkee noo ko daanee. waaw dafa ne woon moo daax bëre. waaw baax ak lépp bëri daax moo yomb. dama gis nga sol ko ci kaw mel ni lu ko dóor tànk yokku ko. dama ko sol bal ko. waaw peese ko peese ko dóor mu daw di kii ma daw ko fel fel ko mu bëgg a mbot ma mbaar ko. bu mu bàyyi am na cër ci làmb. mais mais daal mais daal foo jëmee. non non loolu bàyyi naa ko gars yi. per mbaar dem nañu per mbaar Thank you.